àndaat ak bi weesu fële ca Kaolack gis ngeen ni ñu ñàkkee bi yoon finalu nañ ban yëg-yëg nga ci am ak boo demee ci dakaar loo fay wuti. Dakar maa ko indi rek parce que équipe bi génnul sama loxo te yaakaar naa ñaar ñi ko indi kenn ki maa ko tàggat kenn ki moo ma tàggat waaw kon affaire bi mu ngi mel ni équipe face lañ ko jox tey ma dama sori nag mais téléphone yaa ngi daw ñu dégg soo gisee ma ñëw tey am na lu ma indi lu ma indi mooy ndam rek lu ñu bëgg loolu moo ma indi tey waaw. ndam li nu muy demee. non daan rek ci kattanu yàlla bu soobee yàlla. seen daa ñëw Dakar représenté Dakar muy Serigne Ndiaye 2 mu final trois fois war a bëreeg Doudou Sané trois fois démb bëre nañ mu gagné ko par point tey ñu war a laale ñaari yoon est-ce que Doudou Sané dina bàyyi Serigne Ndiaye 2 daan ko. non macha allah macha allah bi Serigne am na ci Moussa am na ci mérite mérite bi mooy liñ ko sasoon defal nañu ko. te li ma gisee démb ñu bëre ko ñoom ñaar bëri ki démb bëriwaat ko démb waaye Doudou Sané mënul daan Serigne Ndiaye numéro 2. ci logique gu làmb mënu ko daan parce que seen bëre moo déggoowul te résultat bi na feeñ léegi ci kanam bu soobee yàlla. dul tànk bi Doudou Sané ma du parti boobu. fort Doudou Sané la mais saa yu koy def Moussa saa ko fa sëriñ da ko fay bàyyil tànk bi li tax ma ko fay bàyyi mais am na nu demee sax bu tànk bi yéexee ñëw ci la ko di daane su ko gàñul par point ci la koy daane. Ah. incha allah jërëjëf la. ñu ngi ziar waa Seex bi. maa ngi gis nga ñëw di wax ak Père Kat loo koy wax. waaw non Père la suñu lépp la ren yàlla dafa def moom lañ jox écurie bi moom moom moom moom di ñaan yàlla drapeau chef de l'État bi ñu qualifié final Dakar yàlla na ko yàlla jox ndam. si barke Seydina Mouhamed si barke Sëñ Fallou parce que am na équipe bi. am na équipe bi ku mel ni Kati yor équipe bu Dakar ak ku mel ni Moustapha Gueye le tigre te moom mi le tigre tey le tigre dafa dafa fu mu yàlla moom ma. comprends nga bu ñu jox leen équipe bu Dakar bi dañuy ñaan yàlla rek yàlla jox leen ndam tey incha allah si barke Sëñ Fallou day ñëw sot si daal day ñëw sot si parce que Dakar ñun ay Dakar ci lépp Dakar la Dakar bu la dem fu fangalim sax dañuy fay suñu xaaj ñoom fekk si ko man la grand kër sa muy kër sa écrit grand mbooloo muy suudu fay moom te bu nu sama sako ko moom it xam nga moom it père suudu ma ngi noonu quoi waaw bu grand mbooloo lu leen indi fii ñëw pour jëbul ndam li Dakar rek ànd ak suñu eh, entraîneur muy père Kati vraiment doon ku yàgg ci lam ku xam lamb ah man itam may entraîneur grand mbooloo ñu ànd ñu ñëpp kii Ibra la Ibra Mbaye la mooy entraîneur Fass ñu ñëpp ñu ñëw pour jàppale boy yi pour boy yëbbu ndam di Dakar incha allah jaajëf perkat yi daa mel ni gars yi ñu ngi ñëw di la soutenir la dompat sax ci ci sot la boobu waaw Ndakaaru la équipe moom jëpp la waaw bu Sénégal di football Sénégal ñëpp la. bu ñu Dakar di bëre ah Dakar waa Dakar yëpp ay bokk. reporter yi nekk Dakar sax dañoo war a faral Dakar tey. ah bu ñu ñu faral Dakar seen affaire lay doon. waaw ah. ah, de kon ñu ñàkk fayda. <laughs> wallaay mais tey équipe bu bi préparation bi ak tey bi ñu ñëwee fii dafa mel ni surprise bu rëy am na ci côté Tony loolu ci moralam ak mentalam nan ngeen koy fas yéene liggéey ba tey Tony mi ñu soxla woon ñu gis. liggéey nañ ko pare <laughs> ñii <laughs> nii nañ ko liggéey nañ ko ba pare indi nañ ko waaw léegi kañ gis bokk bu ñëwee nga fa da ngeen gis ah. waaw mais bi mu njëkkee daanu daanuwaat daanuwaat bi ngeen demee lan ngeen lan ngeen waxtaan waaw li ñu waxtaan li ñu leen ko wax dégg la bu ñu liggéey nañ ba pare indi nañ ko léegi bu ñu liggéey rek rek moo si des hmm. waaw capitaine bi Serigne Ndiaye 2 mu war a laale ak Doudou Sané dinañ fas yéene laale tey ñaari yoon muy par équipe ak individuel moom it nan ngeen ko waajee lan ban conseil. mu defoon ndémm ba daan ka rek noonu lay defaat daan ka. par point la koy génn. waaw ma par point lay gis na nga gagné. ndam rek moo lay yitte. ma koy suuf sax baax na. rek. Ah, démb gis naa Ablaye Ndiaye. bëreeg Serigne Ndiaye mais bi mu bi ko Serigne Ndiaye daanee daa ñëwaat ci yow. kott la mu mel ni. doom bëre na waaye ba mu daane sport moo leen boole mu ñëwaat ci yow. yan conseil nga koy gën a jox ci drapeau chef de l'état surtout ci làmb ji mu nekk Ablaye Ndiaye bokk ci ñu bari ci làmb yaakaar ko rawatina Joal bi. waaw di ko encouragé rek nekk làmb la rek. waaw mooy comme nit rek day feebar di wér. waaw du toll lu diggante boobu man toll naa woon diggante boobu te ku si nekk da nga toll diggante trop trop. waaw da léegi nag yàlla na yem fii rek mais liñ ko wax ne làmb si li la bokk waaw ñu continué waat waajalaat rek naam ma jaasi yi rek du ñëw duggaat sampuwaat incha allah. jërëjëf